jigéen ñi nag macha allah foo leen woo ñu jóg di ay femmes yoo xam ni dañoo nekk di liggéeyal le président Macky Sall nekk fii ci Mbour di Dóor waar doon ay jigéenu jàmbaare yoo xam ne ay jigéenu fàkk tëdd lañ ñu ne nag koo leen fa heure boo leen yëkkatee ñu jóg. ñu ne ñu nag soxna abi ñun nag dañoo def suñu assemblée générale te dañoo bëgg dara nag dañoo bëgg nag suñu dara ci mbuur nag ndax nu nekk ñu nekk fii rek di jàppale bañ na ko ba ñu école ba ñuy ba ñuy wotee dañ koy gañe waaw di liggéey loo mëcc ayib nag di ko def ci mbuur gii ñun réseau des femmes pour le développement de Mbour ñun ñi nga xam ne dañoo samp benn réseau boo xam ne dañu réseau des femmes pour le développement de Mbour réseau bi nag li ko taxawaloon tey mooy dañoo bëgg la président Macky Sall recevoir ñu jàppale jigéen ñi Mbour jàppale ñu ci suñu liggéey bi ñuy def si développement bi ñuy def mu jàppale ñu ci moom la président bu déggee sama kàddu yi Macky Sall son excellence ñu ngi lay ñaan nga recevoir ñoom la président di la wax ni fii ay jigéen ñu fak jàmbaari fàkk tëdd ñoo fi ne bëgg na nga recevoir ñu ci biir pale boobu di sant le maître euh, le ministre Omar Youm Omar Youm ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax demul bàyyi ñu lekkul dara bàyyi ñu Omar Youm sant nañ ko gërëm nañ ko di ko di ñaan euh, Macky Sall lii ma ñu ko defal ministre des kontaan nañ torop waaye dañoo bëgg mu jël finance dooleel ko ci ndax xam naa ne bu ñu ko joxee finance moom finance fu mu war a dugg fu mu war a tegu jigéen ñi dinañ ci gis seen bopp ñu bëgg nag mu dooleel ko loolu te di ko ñaanal yàlla nag moom Omar Youm li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal Le loo xam ne sumb na ko ci mbuur gii yàlla na ko yàlla eggale waaw nañ ci moom trop di ñaan nak soxna Marème Faye Sall jigéen ñaa ngi ci wetam di ko ñaanal ñun campagne yi dañoo liggéey ba ba génn génn télé waaw dañoo proximité ba ba ba ba naax waaw dóor waar liggéey bay bëgg a dee def ci ci campagne yi waaw kon nag dañoo bëgg bu dul le président di soxna Marème Faye Sall nañu recevoir nañu recevoir recevoir jigéen ñi nga xam dañoo nekk ci mbuur gi di jigi femme de développement di dóor di liggéey guddi ak bëccëg waaw. non non àndaguñoo kenn ndax ñun comme dañoo yëngu ci développement ànd ak jigéen ñi di liggéey ku ne am na droit ñëw seet amno ñu ku ne am namu droit ñëw wax la mu namm ci mbuur kenn ku si ne am na droit ñëw ni lii ak lii moom moom la moom a ñor ci mbuur waaye nag ñun amaguñ fi candidat euh, kii ci local yi waaw ñun amaguñu candidat wa genre nit bi ñu bëgg mooy kii nga xam dal daal day yërëm jigéen ñi kii defar mbuur kooku la bëgg ñun ki fidèle ki nga xam ne dafa am dafa dafay ànd jigéen ñi ànd bu sincère ak góor ñi ak doomu mbuur surtout la jeunesse surtout jeunesse bi jeunesse mbuur kenn gisul sa bopp ci APR kenn gisul sa bopp ci ci nguur gi bëgg maire bu day dëkk bi